yile jamono ki nga xam ni moo di Mame Birame Wathie Mame Birame Wathie ci bi nga xam ni lenn ci gouvernement israélien yi daal di nañ ko amee waaye tamit bi nga xam ni saa su ne gouvernement bu France mu ngi ko bëgg a def ndëgg sërëx gouvernement bi yees bii di gouvernement président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci loolee taxawaay bi nga xam ni jamono gi président Bassirou Diomaye Diakhar fay am na ko ci yitte ngir kat jële fi armée français yees waaye nag lépp dafa nekk li nga xam ne système stratégie la waaye moom ñi nga xam ne tey jii moo di ñenn ci sénégalais dañuy gis ni kii di mam Birame Wathie moom li mu daal di xamle mooy dañ bëgg la tout ba Bassirou Diomaye Diakhar Faye annoncé annoncé ko publiquement te loolee mën nañ ne saa su ne bu amee dina am problème ak bi nga xam ne dina dina impacté wu ci bu baax a baax ba tax na Bassirou Diomaye Diakhar fay nekk na ki nga xam ne doful dina jàpp ko rawat na ñi nga xam ne ñoo koy conseillé lépp lu nekk lu war lu nekk dinañ xam ne ta naka la ko war a taxawee ba daal koy def ndax kat moom mi lee di Bassirou Diomaye Diakhar Faye da jarul yàkkamte benn ci France armée bii daal fi jugee wala ci li nga xam ni moo di moomeelu France yenn ñi nga xam ni saa biti réew waaye nañ taxawaay bu am solo bi nga xam ne Bassirou Diomaye def na ko ba ñu koy fayee ci mim di Sénégal ci loolu ni mu amee dina def la tout ba lépp loo xam ni lu étranger moom la ñu daa ko teg ca yoon ba Sénégal di ci gis boppam bu baax a baax waaye nag li nga xam ni moo di dëgg sërëx bi la Diomaye du ci tàbbi benn yoon